di am mbégte lool ci jataay bi di ziyaare kilifa yi nga xam ne moom lañ fi lim léegi jarul ñu koy baamu ñoom ñëpp gis nañ leen ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen baal bu baax a baax di am mbégte ci seenu jataay di ziyaare it soxna Mbène Mbàkke mais ak i bokkam bokki soxna yim toogal ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaare di leen baal bu baax a baax soxna si ñu ngi lay ziyaare ci turu jawrin sëriñ xaadim Njaay di la sant di la gërëm ci xéewal gi nga xam ne moom la la yàlla jagleel nga wooñu ci xam naa li ci xaw a yéeme rek mooy ni barab bi bindoo waaye ku xam weer wi ñu toll ak jamono ji ñu tollu xam nañ ne dajale taalibe du yomb ndax la ko waral mooy ñii dem nañ senegal am ay feet ñenn ñi ñu ngi ci biir géej gi xëy na loola moo tax waaye nag li ci am solo mooy liñ fi jàng ci alquran ak liñ fi jàng ci xasida ak liñ fi def ci ay salaatu ala nabi yàlla na ko sunu boroom ful sotti ko jëmm ju sell jooju sa way jur woowu nga xam ne moo taxoon nga taxawal bis bi yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def Euh, li ñuy wax nag euh, euh, mbooloo baax na waaye itam donte melut na war a melit pas-pas am na ci wax dëgg yàlla ndax liñ ma wax ne jàng nañ ko fi jàpp moo woon sax na daañ ko fi mën a jàng ndax daanañ ëpp lii te duñ mën a jàng loolu ci alxuraan kon nag loola ca kanam tuuti xëy na balaa yàgg buñ dikkee ci borom bis bi ak alxuraan loola dana ca feeñaat ndax sëñ Àllaaji Gay mi nga xam ne xëy na ak suñ Seex Gay mi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ñu ma wax jàppoon naa ne loolu mënuñu ko fee jàng kon soxna si ñu ngi lay ziyaare ci bis bi di ñaan yàlla yal na nga sut sa waajur wa aw fan di ñaan yàlla sunu borom yokk leeram te taas ñu ci barkeem moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Aziz Baara kon nag xam naa ne dañu koy tënk ndax ni ñu ko waxee jataay bi xat na teyit euh, euh, barab bi ni mu bindoo la waaye ñu xam ne euh, jëmm jooju bi ñi ma mujjoon diglu am na lu ma ci leeraloon xam naa ñu delluwaatu tuuti ca yokk ba ci lenn ci ay fi mu cosaanoo su ko defee la ca des euh, bu ñu demee ba ca kanam ñaar ñi ñu mujjoon a tudd ñu jox leen ñu euh, dàgganteeg mbokki taalibe yi bégalanteeg mbokki taalibe yi ba juróom-ñetti waxtu jot bu ko defee ñu indi xeewal yi su ko defee bu ñu xeewloo ba pare ñu ñaan delluwaat ci tey kon jëmm ji nga xam ne mooy sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Assis Baara doomam soxna men Mbàkke taxawal ko bis bi yàgg koo def lool yal na ko yàgg taxawe di ko ñaanal ki ko yàlla booleel mu ne ci karam di sëriñ Mor Kebe nii na leen yéen ñëpp siyaare leen ñoom ñëpp nee na werantewul nekk amul benn sikk sàkk na ne ku taxaw ci bis bi yaa taxawoon daru Tansiir bi màggal bis bi yéen a yem képp kon itte ju fi waay indi war na koo mën a ñaan ki jërom bis bi itam bu ñu leeralee ay mbiram ak fi mu jaar it kenn ku nekk da nga mën a bàyyi xel ne lu ñaan bu soobee yàlla sunu borom ci mbaaxug borom Touba sunu boroom mën na la caa defal lu kawe sa njort ndax jëmm la joo xam ne e, ni ma ko fi waxe woon jëmm ji yéeme yéeme la boo ma waxee ne ki fi mujj ci doomi sëriñ Touba yi di Cheikh Salih Mbacke yal na yàlla yokki leeram jëmm daf ma wax ne ma sëñ Saliou da daa wax ni sëñ Moustapha de ku ko xam xam ni mu taxawee ci sëriñ Touba boo ko séenee bu la fekkee nga tëdd da nga jóg duju waaye bu la fekki duju da nga jóg taxaw waaye bu la fekkoon taxaw danga dox gàttandu ko loola nag suñu doxee tuuti ci kanam dana leer kon sëriñ Saliou bu seedee loolu ci moom war nañoo mën a xam ne kon am na euh, lu lu loo xam ne lii lu yàlla def ci jëmm jooju la te suñu ko waxee dangeen gis ni mu taxawee ci biir bàmba ji loola mooy lan waxoon naa ko fi suñu nee waajuróom wu jigéen ñi ko fi xam kooka mooy taawu sëriñ Basiiru moom sëriñ tuubaa ñu koy wax soxna astu mbàkke soxna astu mbàkke moomee maam Marème Lo moom sëriñ daam Abdourahman Lo mooy waajuram maam Marème Lo moomee soxna Aminta Mbàkke mooy waajuram soxna Aminta Mbàkke moom lañ joxoon sëriñ Abdou Daam Rahman mu am ca maam Marème Lo moomee soxna Aminta Mbàkke nag ak maam Thierno Ibra Faati mi borom Daaru Muxti ñoo bokk Faati sa ak maam Mor Anta ñoo bokk ndey ak baay xanaa kon googu wet leer na su ko defee soxna maam Aminta Mbàkke moomu nga xam ne moom lañ joxoon sëñ daam Abdourahman Lo it soxna Aminta mi nga xam ne moo nekkoon fee ca Daaru Xuddus di way juru sëriñ Mbàkke Medina moom it ca moom ñoo bokk lépp ak soxna Astu Mbàkke ma ñu yóbbu woon naa kër seex naa Seex Muhammad al Faadal kon ñett ñooñu ñoo bokk taxawe noonee soxna astu mbàkke mii nga xam ne nag mooy taaw sëriñ basiiru nag di way jiru sëriñ mustafa moom sëriñ abdou aziz baare mii ngeen gis kon ni mu taxawe ci yoonu murit ndax maamaatam ak maam cerno ñoo bokk ndey ak baay waaye ay doomi ndey mi gis nga fi ñu dugg ndax sëriñ daam abdourahman ci ay waa këram ñu ci bari da ko dugati waa kër Seexul Xaddim yi ñett lañu woon kii mu yóbbu ko kër sëriñ Basiiru muy soxna Marema Looloo kii mu yóbbu ko kër sëriñ moodu Moustapha kii mu yóbbu ko kër seex naa Cheikh Mouhamad Al Fadal kon foo ko fi làmb danga nga fi fekk sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Assis Baara bokk na ci li nga xam ne ci ay seede sëriñ Saliou dadaa wax ne nawle laa ko def nit ki ne boo ne nawle laa ko def ay jikkoom amatul lenn loo cay xeeb bokk na ci liggéey bi sëriñ Saliou njëkk a def ci jumaay Touba doy gum ko doy la woon moo tax moo ko tegaloon xeer wa moom sëriñ Moustapha Abdou Aziz Baara muy jëmm joo xam ne ji itam ku bari woonu xam-xam la ku nangoon a xetti di doomu aadama la sànq rek maa ngi wax sëriñ Xaadim Sall ma naan ko eh, dama dama dama dama fëtt bayit wa waaye loolu arab yi daa way naan xam-xam bu fekkente ne li ngay xam lépp boo xoolee téere du toog xam maanaam amul lenn loo xam ne da ko mimre si sëb dënn xam mu yem ci téere bu téeree tàkkoon rek booba xam-xam naaw na waaye li nga xam nag mu nekk ci sëb dënn loola moom amutu naan day lakk wala day def lenn ndax saa soo soxlaa rek xam nga fi ngay tibb te loola moom yàlla ñi ko xam yàlla defal na ko ci loo xam ne lii jaaxaloon nañu baree baree baree baree baree bëri ci ay jamono sëriñ Abdou moom seex naa moom seexul xaddim sëriñ Abdoulaat moom seexul xaddim ci ay jamono ñu ci bari xam nañ li may wax daana ko yebal Marseille gii ci France mu fi jiite si jullit itu korité waaye ñu ci bari dañ lay wax naan diir boobu li muy gàtt gàtt otel bi mu daa dal lu mu néew néew lu mu gàtt gàtt balaa waññeeku dana fi bind kaamiru alxuraan jëmm wax na ma ne ci ci ci moom ne ma dëkk bii nga xam ne moom la sañcoon ndax moom mi ngi ganee jamono dëkk bu ñuy wax Busra Busra nag boo xoolee fa mu nekk ak jumaay Touba ji juróom xayma nañ ko ci juróom-ñeenti kilomètre ñett wala juróom-ñett ak tuuti ay mètre mi ngi ci wetu euh, Daaru Rahman gi moom moom sëñ Abdou borom dër bi côté boobu moog Busra soriwuñ benn lañ ñoo taxaloo foofu la ganee jamono waaye dëkkam bii mu sancoon ñu ko wax mbaam jigaan jëmmul wax na ma ne ci ñeent fukki fan. maanaam nag bu fi kenn jóge ne damaa juum ma ñeent fukki fan laa wax ndax borom xel yi ñu mel ne man ñi mën nañoo génn ah, waa ji xëy na dafa waaye alxuraan moom loolu kenn mënu ko ci waaye bu ñu fàtte ne yàlla mooy séddale ci diirum ñeent fukki fan ci mbaam jigaan bind na ci ñaari kaamil benn bi mu jox ko Cheikh Abdoulaye Lahad mi ma waxoon léegi bi ci des mu jox ko waay juróom Serigne Abdou Assis Baara ñeent ñaar fukki fan laa la wax de maanaam ñeent fukki fan maanaam ñaar fukki fan kaamil bu ne 40 mu bind ñaari kaamil wax nañ ne it ne weeru koor wu mu mas ñëw lu mu xat xat xat lu yitte yi bari bari dana ci bindub kaamil jébbal ko ki fi nekkal borom Touba kon kooku xam nañ ne am na cër ci alxuraan waaye xam nañ ne it nit mën naa mën alxuraan te du mën loola ndax 40 jours nga bind ci ñaari kaamil suqi ko ci maas ko ci def ci la ca war lépp ba mën koo jébbale ñu teg ko ci barab ñu bari duñ mënuñu loola. waaye nag yàlla mooy séddale mooy def ci jaamam ñi xëy na loolu la yàlla dogaloon ci moom ak yeneen i bindi xasida yu mu daa def ci diggante ay waajuram ci diggante ay maamam ci diggante Seexu Xadim di ko tasaare loo xam ne li musu ko yàqal dara ci diggam ak ni muy jëflanteeg doomu aadama yi ci ku mu war a dimbale ci ku mu war a gindi teg la ci siraatul mustaqim ci ku mu war a génn ci lëj dugal la ci ak génn ci lëndam dugal la ci ak leer nga xam ne bi ci jàngal maamam sëriñ Moustapha Lo moom sëriñ Abdourahman Lo moom moo ko njëkk jàngal alxuraan ba mu fa jógee bi mu jàngee li muy jàng ba àggalit bi mu de waree dem gànnaar xam nga ni ñu ko xamee ci histoire Sénégal ni ni jàngee dem gànnaar dem Tunisie dem Maroc dem Caire yooyu lañ xam noonu lañ doon jàngee ba léegi am na ñu koy jànge waaye moom bi mu demee gànnaar ba ñëwit sëriñ Moustapha Bassirou ci boppam moo ko boolewaat ak caatum sëriñ Basiru muy sëriñ Isaaxa boolewaat kook taawu mboppam muy sëriñ Cheikh Thion boolewaat kook sëriñ Sooy bu Faal mii ngeen xamoon yal na yàlla yokk leeram tam daa ñëw fii sëriñ Sooy bu Faal Baay Faal daana ñëw fii lu bari ndeysaan at yi ci gannaaw la sunu borom ñëw ko moom ci dogalam moom la sëriñ Moustapha Basiru boole woon yóbbu leen tinis ñu jàngi ba ñu jàngee ba ñëw it la mu war a xam xam na ko mu nekk fa mu war a nekk gëm jaamu yàlla ak liggéeyal seexul xaddim nga xam ne musul moo sa masa doy loo ne man sëriñ Abdou Aziz Baara mooy sama waajur sëriñ Baara mooy sama maam loolu musu koo doyloo waaye lu mu mës gëm mooy jaamu yàlla liggéey jàng alxuraan xettili doomu aadama yi ci kenn ku ci nekk ca nañ la war a xettile bu dee ci mbirum zahir la bu dee ci mbirum baatin la kon loola mooy li nga xam ne mooy jëmmi sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Aziz moom si ana Cheikh Mouhamadul Amin Baara nga gis ne wax nañ la ne weeru koor lu ma mas a xat-xat dana bindub mi jébbal ko ki fi nekkal seexul xadim waaye nga gis ne seede yi nga xam ne wax nañ la sëriñ Saalum moom la sedd ci moom nee naa la ku ne la diw nawle laa ko def na nga xam ne amul ci diw moomee benn benn benn jukko boo xam ne bi naqari na ko nawle nag dañ koy am nuñ koy waxee am na ko nit ñi déggee waaye nawle mooy jëmm joo xam ne ji dangaa xool saahiram xool baatinam gisoo ci lenn lenn loola naqari te it boo doon peese sa bopp it da nga naan bëggoon na maa mel na moom su ma ko munta romb kon loola mooy la nga xam ne moom la Cheikh naa Cheikh Saliou seede woon ci moom. mu sañ ci yeneen dëkk yu bari yoo xam ne yi jataay bi mayu ko waaye la ca gënoon yéeme nga xam ne sunu borom may na ko jëmm wax na ma bu yàggun na ma jumaa ji nga xam ne doon na ko liggéey ci Louga nga xam ne dafa adat turu yàlla bi ñuy wax allahu muy 66 jumaa ji. juróom benn fukki fan yooyu ak juróom benn ci la liggéey jumaa jooyu ci la ko fondement ci lañ ko ci lañ ko ci lañ ko ci lañ ko ci lañ ko immigré loolu jàpp naa ne yombut taxawal jumaa juróom benn fukki fan maanaam ñaari weer ak juróom benn fan ñu ñu ñu sañc ca jumaa ja julli ca loolu moom du ma ne amut waaye yombut loolu yépp dañuy ñëwaat rek ci yàlla ni ko ni mu ko soobe ak ni muy jagle la ay jaamam ba ni mu di ko sëñ Saaliwu sañcoloo daaru tansil gee nga xam ne tey jii ñaan gii ñuy wax ni fa lañ koy defee ñu bari bu ñu nekk Sénégal bu ñu fa demee di danañ ko dégg. nga xam ne jëmm wax na ma ne keroog bi nga xam ne toll na ci ndax moom wax dëgg yàlla am ci zaahir at yi bariwul waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin jëmm wax na ma ma bi mu tolloo ci waaj war a wuy ji boromam dafa ñëw ci genn kilifa ne ko man dey jamono yi dafa am lu ma jaaxal mu ne ko lu mu doon mu ne ko. gis naa ne saa bu ma kàbbaree di julli damay gis Cheikh Mouhamadul Amin Baara ci sama càmmoñ gis sëriñ Abdou Aziz Baara ci sama ndeyjoor jëmm jooju xamal ko na ko kon booy boo nga waaj mu ne ma bi mu ñëwee ñëwaat ci Cheikh Salif Mbacke di ko ko nettali bi mu ko waxee Cheikh Salif si sax dafa dafa na dënn ab diir ba mu yàgg mu ne daal di wax ak moom la muy wax ak moom dem te loola mooy wàcce la nga xam ne wàccaay la nga xam ne moom la doon def pour fas yéene dem añi nag la nga xam ne moom la doon liggéeyal suma borom subhaanahu wa taala ca àjjana yu kawe ya kon yàlla na nu yàlla taas ci barkeem muy jëmm joo xam ne foo ko làmb ci biir ñu baax ndax soxna soxna benn mais may wax ni xëy na ñu bari xamuñu ko waaye jëmm euh, yaakaar naa suñ làmp mais moo ko doon wax léegi sax mu ne euh, doomi sëñ Tuubaa yi sëtam yi bokk ñépp ci maanaam njóobeen kokki lañu ñu cosaanoo moom moomee ay maamam naka noonu fi ñu toll nii moom soxna mbenn mi moom it walhamdulilahi rabbil alamin muy eh, ni ñu ni ni ñu defaloon waajuram rek tànnal ko waajurit noon noonu rek lañ ko defalaat moom it kon ñi di ko ñaanal yal na yàlla yàggal taxawaayam sëñ bi liñ ko fi ñaanal néewoo ko bari yal na ko yàlla fu la ko ca yool ba ñun ñi fi dajee woon te ñaanal ko yal na ñu ci yàlla defal lu kawe sunu njort defal ñu ci sutura adduna ak àllaaxira yàlla am na ko mën na ko ndax wa nunasilu min alqurani ma huwa shifaan wa rahmatan lil alamina wala yasidu zalimina illa xasaara kon luñ ci sàkku rek mën nañ ko am waaye nag suñ tubaa def na woon liman alayhi ihtamada kon jàng alxuraan gi it doyloo ko sukkandiku da ciy di doon ab sart wa shifaa min waaye du doy ndax mën nga caa sëgg nar nari waaye donte la ca yàlla waxee ne sifa min kulli daayit suñ tubaab moom dalaa wax ne kat li man ali ihtamada nit ki li muy def da koy gëm xam ne lii moom li muy saafara àdduna ak àllaaxira mën na ko ci am loola mooy li man ali ihtamada kon lu luñ fi def yàlla na ko sunu borom fuul ñi ngi leen di jéggalu yéen ñëpp ñu ngi leen di ziyaare yéen ñëpp di leen baalu àq yéen ñëpp xam naa ne euh, euh, niñ ko doxalee woon programme bi 30 minutes yi sax xëy na kii jël na 15 waaye nag lu du doy wax dëgg yàlla am loo ci am mu dey kon xam naa dañuy jox sëñ làmp mu barkeelu fukki minute ak juróom ñu jox sëriñ si la mu tëj ko 8 heures pile incha allahu ñu euh, indi xéewal yi ñu lu ñaan dellu ci ci ci ci itte yi kon ñu ngi leen di dellu si di leen ziar bu baax a baax ñu ngi leen di baalu xaq di leen balaax bu baax a baax di ñaan yàlla suma borom subhanahu wa ni ma ko axoon yàlla nañu yàlla defal sutura àdduna sutura fi am solo ëllëg yamal xiyaam sutura fa am solo kon yàlla nañu ko yàlla defal yàlla nañu yàlla sàmm sàmmal ñu njaboot gi moo xam ñi nekk fii la moo xam ne Sénégal la kenn ku nekk ci jafeñ-jafeñ yal na ko suñu borom soppar ci defal la ko jàppandal kenn ku wéré di moo xam gu zahir la moo xam gu baatin la yal na ko sunu borom saafara yàlla am na ko man na ko ci darajay barab bi ñu toog waaye ci darajay ki taxoon ñu daje fi di ko ñaanal ci darajay waajuram wu sell wa ci maamam ju sell ja Cheikh naa ma Mahamadul Amin Baara kon ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di ñaanal soxna si bu baax soxna si ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga ko yàgg taxaw waaye li ma la waxoon sànq bàyyil xer rek nag waxtu wi nga ko jàpp ndax waxtu la woo xam ne xëy na yow euh, euh, miinoo lii waaye ñi yàgg ci réew mi xam jamonoy été xam nañ ne ñaarit loo fa mas a wootit wax dëgg yàlla am euh, nii la ndax ñii dañu am fet dem dem Sénégal siyaar ji ñenn ñi ñi nga ca ndox ma ñenn ñi ña nga ca beneen côté di am lu ñuy def kon loolu rek moo waral lii waaye ni ko sëñ Malick wax sànq mbokki jullit yépp rawatina mbokki taalibe bi kenn ku ci nekk amoon na yéene teew ci jataay bi taxawu ko ñëw ak ñi ñëwut yàlla na sunu boroom def sutura ci zaahir ak ci baatin alhamdulilahi rabbil alamin kon foofu la ñuy taxaw jox sëriñ làmp salaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa hasbuna allah wa nihmal wakil barke borom Touba bismillahi rahmani rahim walaqibatu lilmutaqin wala udwana ila ala zalimin salawatullahi wa salaamuhu ala nabiyina muhammad salallahu alayhi wa sallam mbokk yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara te di leen baalu àq te di leen baal àq ci weer wu tedd wi nu génn di ñaan lépp luñ ci jaamu yàlla na nu ko sunu borom nangul te fulal nu ko di ñaanal Cheikh Sidi El Mokhtar mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal mbooleem njabootug Serigne Touba gi di ñaanal taalibe yépp maa ngi ziyaare ñépp maa ngi fab nuyoo bi nag di ko teg ci loxol ki doon wax léegi muy Serigne Abdoulahi Diaw mu tegal ma ko ci mbooleem loxo yi jëwriñ yi ak taalibe yi féete fii sëñ xaadim jam yi nga xam ne mooy sama xarit moom it nu yàgg lool maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu soxna Mbeen mi nga xam ne moo amal bis bu am solo bii muy bisu fàttaliku ak ñaan fàttaliku nag lu am solo la ndax nit dina fàttaliku rus waaye nit it dina fàttaliku jooy nit it dina fàttaliku békk waaye nit it dina fàttaliku mer yooyu yépp nag mu ngi aju ci la ngay fàttaliku lu mu doon. waaye di fàttaliku jàmbaar ju mel ne seex Moustapha moom seex Abdul Aziz nga xam ne man lu ma xam ci moom dama naan la ku takkoo woon ak moom moo ma ko wax muy sëriñ Fàllu Jumaada ku xam sëñ Moustapha xam nga ko te waajuram wu jigéen ak sama waajur ñoo bokk benn ndey kon sëñ Moustapha am na lu bari lu ma xam ci moom waaye li muy tegtale rek mooy wakkul la naqassu alayka min anba'i rusuli maanu maa nusabbitu bihi fuhaadak wa jaahaka fi haasihi alxaq wa mawxisatan wa zikra lil muminin bu ñuy fàttaliku ñu mel noonu liñ ci war a defee mooy defar ci suñ jikko ak suñ pas-pas ndax ñoom day bokkuñoo ñi daan wax ne àdduna amul solo ndax àdduna li muy ñàkk-ñàkk solo la ñuy dundee ëllëg fii lañ koy wutee ndax leeruk tàkkusaan gii ku mu jaay ba ñépp di jënd pétrole nga lànk ci lëndëm ngay fanaan sëñ Moustapha nag li ma gënoon neex ci moom mooy nangu gi mu nangu woon a liggéey ne ci àll bi di liggéey di dundi aw ñaqam ba ca topp mooy maanaam am lente gi mu am woon ak mboolem jullit yi ak ñi bokkal sëñ Touba bennoo loolu nag lan moo ko mën a maye mooy jikko ju rafet moom ku rafet jikko la woon ku sàmm la woon ku wegu la woon ndax kat bu nu fàttalikoo ne sunu boroom moo nu bind ci benn bakkan yaa ayyuhan naas innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jahalnaakum suhuban wa qabaa'il li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum moo ñu bind ci aadama noccee ci aadama moomu ay couleur ak ay peuple ak ay continent yi wuute ak ay langage ak i der waaye li bëgg mooy ñu xamante taaruf boobu mooy ngeen xamante léegi suñu xamantee nag dañuy daal di mucc ci noonoo suñu xamantee dañuy daal di mucc ci histoire suñu xamantee dañuy daal di mën a dimbalante te suñ dimbalantee dañuy daal di mën a jariñante sëñ Ablaay wax na ko léegi ne mbooloo mi li muy néew néew jàng nañ fi lu mat ñetti kaamil walla bu fekkee ne li ma dégg noonu la waaye loolu li muy tegtale mooy ah waaw kon loolu li muy tegtale mooy kam min fiatin qalilatan xalabat fiatan kasira bisnillah wala ma sabirin mbooloo mi bari mi du ci ab takk mais Pastef bi rek mooy la am solo kon loolu nin nun murid liñ ci war a jànge mooy ginnaaw mbooloo mi nekkuñ fi ñu man loolu kon luñ gën a bennoo rek luñ gën a bennoo rek doyul bennoo nag boroom xol bu rafet moo ko man ak borom jëkku ju rafet waaye it nu fàttali ko it na yonent bi salaa salaam nee na na ngeen waajal juróom njëkku juróom ixtanim xamsan xabla xamsin sababaka xabla haramik sag waxambaane balaa sag mag a ñëw sëñ Moustapha nee nga at yi bëriwut waaye nag wa minkum man yutawafa wa minkum man yuradu ila arsalil umr li kay la yaalama min ba'di ilmin shay'a doomu aadama léeg-léeg yàlla bàyyi ko fi mu gudd fan lool ndeke da koy wan ay misaal ci àdduna parce que gudd fan nag ak yàgg fi duñ benn de yàgg fi nit mën na fee yàgg lool mais du gudd fan nit mën na fee ñàkk yàgg ba noppi gudd fan sëñ Moustapha Abdoul Aziz yàggu fi mais ku gudd fan la parce que gars yi nga fekk ca teen ba demaguñu dañoo rootul rek mais ku root ñibbi ku ba sax bagaan fees nga dem moom nag li ko taxoon a ñëw àdduna xam na ko mooy teg tànkam ci siraatul mustaqima xam ne sëñ sëñ baara mooy waajuram rek maanaam mooy maamam rek doyloowu ko sëñ abdul aziz rek mooy maamam rek doyloowu ko waaye nag dafa jug nag daal di ijtihaad walazina jaahadu fiina la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la mahal muhsinin dafa ijtihaad tege ci yoon wi xam fa ay waajuram nekkoon mu bokk it ci néegub wégéj ndax bu fekkee ne danga nga koo topp ba ci wàllu sëñ daam Abdourahmane Lo it da ngay jàll ba ci cekkeen waaw ah, ndax man maag moom foofa lan daje mu bokk ci néegu wégéj te mégéj wégéj dañuy wax ne màgg say noon dee boo wégéj bu màggee rek ay noonam dee parce que nit ku am jom lay doon ku am mbañum rus lay doon ku am fulla lay doon ku bëgg boppam lay doon sëriñ Saalif mbakke radiyallaahu taala anhu ni mu toll ci diine ji toll ko ci tarixa bi su naan diw sama nawle la kooku li muy tegtale mooy diw moomu gisuma ci moom lu mën a xari mosuma ko digal te defut mosuma koo tere tey li am murit bëgg murit mel ni sëñ Moustapha Abdou Aziz mel na ni kon nun liñ ci war a jànge mooy nu jéem a defar nun suñuy jikko ci jikkoom alxuraan jin fi jàng nag mu néew mu bari yàlla na ko ci yàlla jotale defal ko ci maanaam yóbbu ko ca fii maqhadi siddiqin inda malikin muqtadir wanale koog way juróom ya ak maamam ya sëñ baara ak cheikhuna ahmadul xadim te taas ñu ci barkeem soxna si yàlla na ko yàgg taxawe dafay fekk ne rek euh, bis bi du bisu naqar waaye bisu mbégte la ndax ñoom bu ñu nekk ci àdduna euh, ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxsanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fi lxayaati dunia wa fi l axirati la tabdil li kalimatillah tayit zalika huwa fawsul azim kon ñoom dañoo rafet ci ñoom njort ndax moom dafa bàyyi woon xel ne dee leen waaj seen waxambaane balaa seenug mag a ñëw da doon bàyyi xelit ne dee leen jamono bi ngeen di amee alal dee leen ci waaj di ci def ci yoonu yàlla balaa ñàkk ñëw dafa bàyyi woon xelit jamono bi ngeen di wér dee leen waaj ndax wéré dana ñëw dafa doon bàyyi xelit na jamono bi ngeen di dund dee bàyyi xel ne dee dana ñëw dafa doon bàyyi xelit jamono bi ngeen di am jot dee leen bàyyi xel ne jotati dana ñëw yooyu yëpp mu sàmm ko ba feesal dellu jamonoom yàlla na nu yàlla tas ci barkeem bis bi yàlla na ko soxna si yàgg def nu yàgg ko fekkee lépp luñ fi ñaan yàlla na ci jot wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëñ Lapp kon sëñ Bousso sëñ Sylla min aseytaan rajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu taala ala sayidina wa tasliman kon ginnaaw bu ñu ci bismillahi rahmaani rahim di sant yàlla ni mu gën a ware di julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam ni mu gën a selle maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam te di leen siyaare tey sàkku ci yéen ñaan te di leen ñaanal di leen balu àq te di leen baal àq daanaka dañuy wax ne géej mënees koo ŋacc waaye sëñ Moustapha li fi gaa yi jaar ba jàll wax rek doy na sëkk ku ñuy wax ne sëtub Cheikh ban Banma la moom mi nga xam ne dafa wax ne yàlla moom moo ko moom loo alxuraan ab kaamil ku koy bind ci ñaar fukki fan kenn ku nekk xam ne na jagloot suñu boroom la sëriñ Tuubaa nag day wax ne ahlul fasahati turran bisana madaho wa laysa yudraku bil akwaabi tayaaru mu ne ñi nga xam ne dañoo géeju ñoom ñëpp tagg nañ muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boroom fasaaxa yi biñ ko laajee luy fasaaxa mu ne fasaaxa mooy koo xam ne lu mu wax ku ko dégg man cee jariñu ñu ne ko waaw mu ne ñooñu nga xam ne dañoo fasaaxa day bisana madaho tagg nañ xayrul alamin walay sa waaye nag walay sa yudraku bil akwaabi tayyaaru boo demee fi géej yoros kook ne da koy ŋàcc fa ngay dee kook sa damaatoo waaye géej gi du yëg na yaa ngi ŋàcc moom kon li boroom xam-xam yi di wax rek naan lilaahi xawmun isaa xalaw bi man silatin ala nada wa ala fil jawi anwaaru tasdaquhum kullu ardin yansaluuna biha ka annahum li buqaa illaahi am taaru sëñ Moustapha ci ñooñu la bokk kon waxtaan wi waxtu bi dafa gàtt daanaka liñ bëgg a wax du fi ndaxte koo xam ne aw ak mbaaxam ak aw meloom boo ko doon wax ren ba déwén doo ko mën a jeexal ne su koo wax ci ay minutes liy tegtal bi rek mooy sëriñ daam Abdourahman Lo sëriñ Mbacke Maduna ak sëriñ seex Mbacke dañoo ñëw nuyu si ko bi ñu jàngee ba pare mun leen war ngeen a sant yàlla ndax seen mbokk yépp maa ci gën a bon te man Cheikh ban ba wax na ne man murid saadix laa te murid saadix am na maqaamaam bu yow mal xiyaamee mu jël benn tànk bi teg ku buntu àjjana benn bi mu teg ku buntu sawara ku nar a dem mu jóg ko yóbbu àjjana loolu rek doy na tegtal. may wax ne sëriñ tubaa day wax ne ku topp samay ndigal bàyyi samay tere bu yow mal xiyaamee dinaa la takkal ndoom ak tànk ngay dimbalee ba ñu dee na mënata ñëwaguma nee na topp ay ndigal bàyyi ay tere lañ koy amee sëriñ Baye Jaxate wax ne lu dul ndigal amul njariñ te kat yëgal ne ab sëriñ du jël ay njariñam jox ko ku toppul ndigalam kem loo jëfal nag sab sëriñ am lu nu tollu ci njariñ loo jëfalul nag sab sëriñ boo ko bëggee it doo ko am kon ñu góorgóorlu bañ rek di waxtaane gaa yu baax muy neex ci suñu nopp dañoo war li ñuy wax ci ñoom ñu jukkoo ko ñu di leen roy bu ñu mënta àgg fañ àggan tamit tegu ci yoon wi Sëriñ Tuubaa wax ne yaa ayyuha nabi lu dax dunyaaka xablal mamaati wax su doon uxraaka yow aji yeewu ji bàyyil sa àdduna te jublu sa àllaaxira bala ngaa faatu ndaxte àdduna moom nii rek la tudd xëkkakal yow ma wa tubki ka xadaa te surru tawran wa te suu sarmada daf lay reeloo tey jooy loola suba bég loola ay jamono mer loola faw moo tax sëriñ Moussa Ka wax ne njëkk a war àddunaay sa ndam bala laa war bëgg laa nax ba war la rekk a di nar ku mu àndal lu yàgg-yàgg dalay war njëkk koo war mu suba dee di sa tiitar war na ñoo xam ne ñoo la ëppale kartan ëpp lay mbir te seeni mbir ëpp say mbir sëriñ Tuubaa wax ne laa tax sëri dunya bi uxra yaa fataa man baaxa nooran bi yaa sa yandamu bul jël sag leer jënde ko ak lëndëm bul jën sa àdduna jënde ko àllaaxira daa di wax ne wa arxabul asiya ilal amwaati raddun ila dunia mahal xayaati walaw suway xatan faqat li yaxmaloo saalihatan tanfa'uhum in xafaloo ki nga xam ne dafa faatu bañ teg ko ci ak jaat jébbal ko boroomam li muy gën a bëgg mooy dellu siwaat àdduna doon doonte ne waxtu lay doon ngir bu ñëwee lépp lu mu daan def benn mu def ko fukk wala mu def ko téeméer ngir alaaxira kenn xamul fu mu yem te loo fa jëful doog fa fekk moo tax sëriñ Tuubaa wax ne faj tax yi dan wal takku sas di jaari ama alayhi fi wa anta fil awtaari min rasaa'il wa tuulil amali wal jamhi wal manhi maha takkasuli nee na nga góorgóorlu sax ci li xam ne moom la la yàlla digal te moytu caay caay ak dajale alal di ko tere nit ñi ak di tayel mu ne wax fas jawaarika jawaariha ka ay su tox sadu an kullu ma nahaaka anhu sa yi nga xam ne moom la yàlla jox na koy wattu waxtu wu nekk kullu hudwin xat asayta abada biha biha tadxulu baabaha xadaali sëriñ Tuubaa wax nee na cër yi la yàlla jox juróom-ñaari cër la cër bu ci nekk daa dëpp dëppoo ak benn buntu ci sawara bépp cër boo xam ne mooy nga ca sawara mooy dem sawara ja buntu booba ngay jaar doonul ne cër booba rek mooy dem sawara mi ngi mel ni ki nga xam ne dafa tooñ ñu war ko yóbbu kaso moo xam dafa dóor nit wala mu mbëkk ko wala mu def ko neen ci benn cër buy dem ca kaso ba it cër yëpp mooy ànd dem dem ca kaso ba kon bépp cër boo xam ne da nga cee mooy yàlla bu sag dem sawara waree sabab bi ci cër boobu lay doon waaye cër yëpp ñooy dem sawara Sëriñ Tuubaa wax na wa dum ala nasri aybi nafsika nee na na ngeen di bàyyi di xool ay bi nit ñi kenn ku ci nekk am nga ay ju la doy sëkk mu ne nanga xool sa ayib bi bopp te fexe saafara sàkk lu koy saafara ci waxtu wu nekk mu ne wadum alaana wadum alas diyaade alimin waxaman li ka rabbika faqat xasa wajal na nga nekk di dolliku xam-xam ak di ko jëfe waxtu wu nekk ca daraje yàlla ak yonant bi sëriñ Tuubaa wax ne isil muridu laa yuridu abada xayru darrahman ay su xasada ndaxte nee na ab murit mooy ki nga xam ne bëggul dara dul ngërëmal boroomam ak fu mun a jublu damay wax ne murit yi ay tànneef lañu sëriñ Tuubaa day wax ne lama araada allahu an yaxluqa samawati wal arda amaral maaha an yaqtariba amwaajuhu alfa xuqubin fi kulli xuqubin alfa sannatin fi kulli sannatin alfa sahrin fi kulli sahrin alfa yawmin fi kulli yawmin miqdaaru xumra dunya sabxiina alfa marra ba yàlla naree bind asamaan ak suuf yàlla dafa xool jalaal jalaal xool jamaal mu tiit soppeeku géejug leer da yëngatu junni jamono jamono ju ci nekk junni at at mu nekk junniy weer weer wu nekk junniy bis bis bu ci nekk juróom-ñaar fukki junni at lay diire yàlla door a xoolaat jalaal jalaal xool jamal mu daal mu jël ci purit ma sànni muy asamaan mu teg toog juróom-benn fan laa suuf ne fan laa nekkan Seex Ahmad Bamba ma ne maa xam fa yàlla nekkan ak lu mu fi ne nekkewul xalla ma nii maa kaana xablal xalqi man kaana la bi karamin wa telqi yàlla door a bind nit teg jinne ak malaaka daal ne amaa jamihul anbiyaa wa rasul faqakadul minal uluu fi arju téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent ñoo gën ci mbindeef yàlla yi yàlla dugg ci seen biir tànn ci ñett téeméer ak fukk ak ñett yónni leen ci jaam ñi dugaat ci seen biir tànn ci ñaar fukk ak juróom ànd leen ci biir alxuraan dugaat ci biir ñaar fukk ak juróom yi tànn ci juróom muy awlul xasmi mu duggaat ci biir juróom yi tànn ci muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daal ne muhammad rasulullah wala sina ma ahu ashidda alal kufaar ba aaya ba jeex sëriñ tubaa nee na ma soog a dugg nag ci xeetu muhammad rasulullah yi tànn fi muridullah moo tax mu ne kuliyati muxjasatun taxaqarat wa xayra xayratun ladayka doxirat kon isil muridu laa yuridu abada xayrul rahmaan ay su xasadaa sëriñ Tuubaa wax nag ne isil basiratu ka mislil basari yam na oha kasaral min nasari nee na bisab xol dafa mel ni gis ab bët ni nga xam ne bët bu ci fepp suuf duggee boroom dootu mën a xool ab xolit bu ci bàkkaar duggee wala lu dul noonu day dox sa diggante ak leer day dox sa diggante ak def lu baax moo tax mu ne fa lu taari in min al axyaari fel xal bi maanu un min al anwaari mm. moo tax mu ne wax ma li dunyaaka ka annaka laa tamutu wax ma li aaxiratika ka annaka tàmmut a xadaa booy liggéey da war a liggéey ba mel ni doo fi jóge mukk booy jaamu yàlla nga jaamu yàlla ba mel ni suba ngay faatu sëriñ Tuubaa wax ne wa ahmaral awxaata bi nawaafili baxdal faraa'ili bi laa taxaafuli nee na na ngeen di dundal waxtu yi ci la waxtu wu nekk ndaxte jullikat bi ko yàlla di indi juróom fukki julli la woon bi nga xamante ne nii ngi koy indi yonent yàlla Muusaa moo ko ne waxal sa boroom mu wàññi la julli juróom fukki julli àttanuñu ko mu di ko wàññee ba mu des juróomi julli juróomi julli yi naafile yi nga xam ne moom la ñuy naafile ñu seddalaat ko ci biir juróomi julli yi julli suba da ngay jiital ñaara raaka teg ci ñaara raaka julli tisbaar nga jiital ñeent raaka julli tisbaar teg ci ñeent raaka julli tàkkusaan nga jiital ñeent raaka teg ñeent raaka julli timis nga julli ñett raaka teg ci juróom benn raaka julli gee nga julli ñeenti rakka teg ci fukki rakka ak safaak witar muy juróom fukki rakka nee loo boo ko defee da am yoolub la nga xam ne moom la Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jële woon ci yàlla andi ko niki noonu woor giñ jógee bu yàggut si Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yàlla moo waxal boppam ne kullu amalin ibnu aadama falahu ila sawm fa innahu lii wa ana ajzau bihi bépp jëf boo xam ne doomu aadama jëf na ko dama koy boole ko koy fay ba mu des koor nee na koor man yàlla maa ko ma maa koy fayal boppam niki noonu wird wax man li duniyaaka na ko doon wird fu kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yahida siwaahun intama ila al jilaani aw intama li ahmadu tijaani aw li siwaa ma min al aqtaabi is kulluhum qatan ala sawaabi nee na wird wu mën a doon bu fekkee ne danga ko yort yor te nekkoo di yàq ak a fo wird wa dina la womat ba yóbbu la ci ki nga xam ne mooy sunu borom niki noonu sikkar amma dawaamu sikru fa huwa akbaru min kulli ma kaanu muridu yuksu sëriñ tubaa nee na saxal di sikkat tur yàlla moo ëpp doole lépp lu ab murid nekk di ca yëngatu ni ki noonu di saraxe waxtu wu nekk jël sa alal di ko jox ci yoonu yàlla ni nga xamante ne mooy ngërëm Seex Rafal suñu borom dafa wax ci alquran ne yaa ayyuha alladina amanu al udulukum ala tijaratin tunjikum min asabin alimin tuminuuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum salikum xayrun lakum wa in kuntum taxlamuna yaxfir lakum sunubukum wa yudxilkum jannatin tajri min taxti al anhar wa masakina fi jannati adin salika al mooy ngir mi nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima Fall tànn amut julli amut woor moo gën a gaaw suñu borom moo wax ci alquran ndax duma leen tegtal commerce bi nga xam ne moo gën a gaaw ci yóbbu leen àjjana musal leen ci sawara ñu ne ko ah kay yaa ayyuha allazina amanu hal uddulukum ala tijaratin tunjikum min asabin alimin ñu ne ko mooy ban mu ne tuuminuuna billahi wa rasulihi ginnaaw bu ngeen gëmee yàlla ak yonente bi wa tujaahiduuna fi sabilillahi ngeen di jahaar ci yoon yàlla bi amwaalikum seen alal ndaxte alal ci xol la sax yàlla dafa wax ci alquraan innal insaana la xubbil xayri la sadidun doomu aadama dafa bëgg alal lool ci ab xolam la sax jamaxa maalan wa haddadahu te nee na da koy dajale ba mu bari boo yoroon tey ñaari 2000 euros da nga koy teg si barab saa boo xëyee wàññi ko ba mu mel na meloon nga tegaat ko fa loolu mooy jamaxa maalan wa addadahu yaxshubu la maalahu axladahu jàpp na alal jafe sax déedéet kàlla da ngay dem wala mu dem Cheikh Ibra fal ne damay liggéeyal yàlla rek di tudd Muhammad Rasulullah lu ma am jox si Ahmad Bamba yàlla na watu jaar bi am waali ko anfusikum ak seen jëmm wax ne tabe ci jëmm mooy daytalub tabe sa mbokkum julit am aajo nga ànd ak moom ca aajo ba di ko ko toppatoo ba ajo ba faju dañuy wax ne képp koo xam ne sa moroom julit dafa am soxla nga ànd ak moom di ko lijjantile bu aajo ba fajoo yàlla dina la jéggal say bàkkaar bu fajoo tamit yàlla dina la jéggal say bàkkaar kon tabe ci jëm mooy daytulub cabe moom la yàlla wax ne bi amwaalikum wa anfusikum saalikum xayrun lakum wa in kuntum taxlamoona yaxfiru lakum sunubukum dañ leen ci jéggal seen i bàkkaar way doxalukum janaatun tajri te tàbbal leen ci àjjana min taxti di daw kon jëf lu am la moo tax suñu borom wax ci alquran ne masalu lasina yunfiqoona amwaalahum fi sabilillahi ka masali abatin xam ne dañuy jël seen alal ju leew di ko def ci yoon yàlla mi ngi mel ni ku jël pepp fekk suuf su waaw nga gas ba mu xóot dugal ko ci biir suñu boroom mooy ñëw akum ndoxam daal di taw saxal ko benn bu nekk mu def ko ab gub gub bu nekk mu def ko téeméeri pepp man yàlla nii laay def nii lay fayee ñi nga xam ne dañuy jëf ci yoon yàlla kon jëf ci yoon yàlla lu am solo la may wax na nag mucc lu jafe la sëriñ tubaa day wax ne ina salaamati min al xuruuri la umri rabbi ashaabul umuri li annahu yakunu bil xilmi kama yakunu bil jahli bi xawlil ulama nee na mucc lu jafe la warul yomb la nee na julli defe ko ni mu ware woor defe ko ni mu ware teewul doomu aadama bi dina dese ay bakkaar ak ay ñaawteef lu toll ni diggante asamaan ak suuf suñu borom dafa wax ci alquran ne atluma ooya ilayka min alkitaab waaqimi salaata inna salaata tanha anil fasa wal munkar dafa digle julli nga dem bëgg a julli mu ne la taxrifooni xabla an taxbudooni fa in lam taxrifooni fa tax kayfa taxbudooni demal nga xam lu ma bala nga maa jaamu soo ma xamluwul lu njëkk nga may jaamu doo ma mën a jaamu moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne wa man tajarrada li taahatil jalil qabla tahallumin fa xumlun la la nabil képp koo xam ne da ngaa futteeku ne da ngay jaamu yàlla te amoo xam-xam nee na dof nga buy jayaxu moo tax mu ne yaa ayyuha sibyaanu laa tastaqiloo anil hudaa wa bil ulumi istaqiloo yéen ndaw ñi bu leen soxla woon dara lu dul sàkku xam-xam ak di ko mokkal daa di wax ne yaa ayyuha subaanu in xiftum xajal fa xaddimoo taxallamun alal xamal yéen ñi nga xam ne yéen ay waxambaane yi bu ngeen ragalee gàcce lépp lu ngeen di def na ngeen ca jiital xam-xam lu njëkk ngeen koy jëfe kon mu ci yombul ndaxte mi ngi mel ni ñu jox la ndox mu bari ak njàpp ak saabu nga dugg ci wanag wi ndox mu jeex saabu bi jeex nga génn gën fee taq julli bu la mënta tàggale ak fen ak jëw ak rambaaj boo yeboo nga bokk sëñ Saliou bi mu toogee jamono li mu njëkk a wax mooy am na benn jamono fii fi njaareem nee na sëriñ Touba di julli ji tàkkusaan am ñu muy ràbbuloo aw sàkket romb leen fa ku sëriñ bi liggéeyloo dara doo bàyyi tes àggalut biñ ko rombee sëriñ bi julli ji ba ñëw ànd ak benn naar naar bi gestu leen na leen maasaa lakkakum fii saxar lam naa ko minal musaalit moo ci topp sëriñ bi daal di gestu leen si tasu leen na leen tepp leen sàkket wi bañ ngeen yem fa ñuy fa ñu yeman ba ñu julli ji ngeen julli ba ñëw soog a àggale sàkket wi daal gestu naar bi na ko fa waylun lil musallin kon julli dem sawara ñàkk julli dem sawara kon mu ci yombul kon war nañoo sant yàlla bi ñu boolee ak si Ahmed Bamba Sëriñ Saaliw day wax ne am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko moo ko gën ndaxte boo ko amee te xamoo ko doo xam noo koy jariñoo waaye boo ko xamee te amoo ko di ko wuti boo ko wutee di nga ko am boo ko amee di ko téye di xam ni koy jariñoo loolu moo waral suñu Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sàkku ci yàlla Cheikh Ahmad ba nekk jëwriñam ji koy liggéeyal ci kaw suuf daal di wax ne raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadimuhu wa abdillahi ndaxte dafa xool xol yi yi nekk ci kaw suuf yépp Cheikh Ahmad Bamba gën cee sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gën cee sopp yàlla moo tax mu ne wa inna nii hibbun lahu wa hibbu rasuluhu wa hibbu man yuhibbu wa innahu hibbun lahu wa hibbu rasuluhu uhibbu man yuhibbu nee na man Cheikh Ahmed Bamba day ku sopp yàlla laa sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sopp ku sopp yàlla ak yorante bi ak ku leen sopp ñoom ñaar looloo tax Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñaan suñu borom Serigne Touba nekk wootaakoon boo xam ne mooy xet li jaam ñi ci jamono ji ñu toll mooy Touba li man balaxa mi'ata rabihatin ba'da alfin biñ demee ba gàddaay ga am junni at ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci la si Ahmad Bamba ñëw jamono. wax nañ ne Maam Mor Anta Sali moo doonoon wasilaam ba nga xamee ne dem na ba gàddaay gi li yonante bi waxan jot ci la Cheikh Ahmad Ban bu fab loxom bu tedd bi teg ko ci dënam bu tedd bi daal ne al isaaratu ak fii man nii maay ki Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doon wax booba la Maam Mor Anta Sali làqu moo tax mu ne commencé woote naan lakin onaadi kullal hibaadi commencé woote naan maa ngi woo jaam ñëpp yaa ahlal barri yaa ahlal bahri uujulul barri bahri saqaay yéen ñi jàng ba jeexal téere yi ak yéen ñi dalagul baax yéen ñi dëkkee jéere ji ak yéen ñi dëkkee géej gi kaay li fi maa leen war a dem bi commencé woote naan law alima naasa maa unaa la baadroo lakk li maa joxiloo bu nit ñi xamal li nekk si man dinañ gaawtu wut si ko waaye dañ koo réeru daal di wax ne tahabbu si taxalluqin bi yeesul bi jaa iman ilayhin wajuhun nasul yaqudu lil jinaani man ahabba li naari kabba damay wax ne Seex Ahmad Bamba nag dafa wax ne bi mu ñëwee jamono doonu lu dul bëgg dem ci yàlla naa ko xabli bi fadlika yaa wahaabu yaa maliki kaw nii la day kakaman bi ruuxi sawaaru mm. yow yàlla dama bëgg a ñëw nekk fi yow nga boole maa maag Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi ngay nem ko suba ak ngoon yàlla tegtal ko Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax nee na bi ma ñëwee ba jàkkaarloo ak Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dama ko ne antal karimu ana xadimu daxran udimu fii ka sa naaya anta yow alkarimu yaay ki gën a tegg ci jaam ñi ana man alxadimu maay ki ci dàq liggéey mu ne ko liggéey bi nu muy demee mu ne ko daxran uddimu diirub jamono fii ko ci yow sanaa ilay tan moo tax mu ne xaaral mi daal di xaaral fu xaad yi an maddi ihaad yi yuy buddalaahi yëpp daaju ma mas a jege rek ngàcc naa ko dem naa ba sama xol bi di bax bax di fóot ci tàgg Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te si Ahmad Bamba nee na amel naa Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa boo xam ne fu ma jaar fu ma jaar fay ko ko loxoo àlla ya li waj ilaahi day nu zanan ma yaxtaaru ba yow mal xiyaame ba nit ak jinne ak malaaka teew yàlla jël siraat gàcc ci kaw jahanama doomu aadama yi jànkoonte ak tiis ak njàqare si Ahmad Bamba nee na bu keroogee dinaa taxaw fi kanam jaam ñi tàgg Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu bàyyi maag mu jël Muhammad rasulullah bàyyi maag jaam ñi maram mu leen si Ahmad Bamba nee na tuuti bi doo gaaw a jariñu moo tax mu ne raamal wara nay la fadlin musri ina loxo wal fadlu inda rasulillahi qaraaru gaa yaa ngay njëkkante ay ngëneel daw jëm fa yàlla waaye ngëneel yi ma fa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te nee na maa mujj a jóg maa gën a jekku doxeen maa gën a gaaw maa fa njëkk maa jël la fa neen ku bëgg kaay ma dimbali la nee na gaa yi dañuy naani géej man may naani ci dënnu borom géej gaa yi naani woon géej bu ñu ñëwee jaaxal ñi mënta naani géej waaye man ma naani woon ca dënnu borom géej su ma ñëwee jaaxal ñi naani woon géej gaa yi naani géej di ñëw may naani ca dënnu borom géej di ñëw te gaa yi naani géej yéeguñu ko nee na gaa yi jóg jëm géej man ma jóg jëm ca dënub borom géej géej jóg jëm si ci man géej a ngi Tuubaa ak njaareem di ma seet du dem te ñëw ma ma dem ca dënub borom géej dellu sa jël géej dugal ci biir xasiida yi daan na yaa ahlal barri yaa ahlal bahri wujudul barri bahri shaqa ay yéen ñi jàng ba jeexal téere yi ak yéen yi dalagul baax yen ñi dëkk jéer ji ak yéen ñi dëkk géej gi kaay yéen fii maa leen war a dimbali moo tax sëriñ Moussa ko wax ne yaa ahlal barri Seex Bamba woon a gaa yi jéeri yaa ahlal bahri géej am ak jéeri Seex Bamba dem na fépp faj na aajo yépp naa ko billaahi yaa mat li nga doon noo seddu teggi cër bu duun wàccal damul lagul te téende am nga làmmi xarnu bi mboolem saxaabatu rasul ak mbër ya daan tagg rasul mel na ni bay nga seeni tool bayaale tooli xarnu bi ka xab da daan tagg rasul xaasaan da daan tagg rasul buusay da daan tagg rasul semal nga leen ci xawri yi yaa raw ña daan janloog rasul ngir yaa liggéey ba am wusul ba def xali fatu rasul kawe nga mboolem xarnu bi kon yaloon yàlla taas bi barkeem jërë ngeen jëf bi jaay sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf xaar jërëjëf sëñ Sylla waaw waaw waaw jërëjëf sëñ Sylla tubaarkàlla taalibe yi seen xol sedd na guy waxtaan wi am na solo lool yal na la yàlla fay yal na la yàlla wéral yaag sëriñ làmp ak mboolam taalibe sëriñ Tuubaa yépp taalibe yëpp seen xol sedd na sëñ seen xel daal na delloo si nga waxi sëñ mu Ka delloo si nga doxinu Serigne Touba delloo si nga ak taalibe Serigne làmp yow sant nañ la gërëm nañ la siyaar nañ la bu baax xam nañ ne jamono ji moo xat ak taa bi waaye yéen ñëpp ku ci nekk li mu ëmboon war koo génne ngir nit ñi jariñoo ko xajut sax maanaama ci jataayub waxtu wi nu nekk kon yal na leen yàlla defal tawféex defal leen ak mucc su loolu jàllee eh, dañuy yëgle ñaan gi kaamil alxuraan yi ñu fi naan jàng jagleel ko sëñ Moustapha am sëñ Baara kaamil yooyu la leen deux août lañ koy def fii ñu ngi sàkku ñëpp su boobaa def ñëpp teew kaamil yooyu nga xam ne moom lañ daan def sëñ Moustapha moom sëñ Baara le 22 août lañ koy def fii lañ koy defee na fi ñëpp teew kenn ku ci ne def ci yéeneem te buñ fàtte altine ji nga xam ne mooy ndigalul sëriñ Sidil Maxtaar di suñ dimbalu adduna ak suñ dimbalal àllaaxira nga xam ne moom ba mu fi toogee ak léegi sëriñ Tuubaa rek la ñuy wan te mosunoo wan boppam te mu fi toogeeg léegi wax na nu ci boppam wax nu ci Serigne Touba lu war a dal ma xel ku toog fi yow ba mu yàgg mu ne la man de maa ngi sant yàlla waaye yéen war ngeen a sant yàlla ndax jamono ju ne Serigne Touba ngi soppi ko ci sama jëmm ji loolu nag ku ku àgg ci Serigne Touba fa mu àgg xam moom mooy kan xam li mu doon ci Serigne Touba xam sax bi ko Serigne Touba teg ci kawam ak ni mu ko téye kon dama yàpp ne su joxee ndigal nun ñëpp kenn ku ci nekk foo jëm na nga ko yóbbaale bu altanee bu nu wàccee deux heures nun ñëpp nanu fi dajee ba neuf di jot ba dix heures ba lim bii i mat sëkk. nu egg fi bu lim bi yeggee nu ñaan taasu ca barke ba ak xéewal ya te bàyyi koog nam ca fas ak nam ko fase ak lam ca bëgg moom moo ko xam yàlla dana nu ko defal ci barke sëñ Touba. kon su loolu jàllee dafa mel ne mën na noo jox sëñ Moustapha ah, mën na jox sëñ Mbakke sëñ Ablaye su ko defee ñu àggale listéef yi su ko defee daal ñaan xéewal ngi ñuy defar su ñëwee mu xéewlu suñ noppee doo ko yewi ko kon bisimilah sëñ Ablaye ñu tëj.